صل وسلم دائما ابدا بك خير الخلق كلهم امن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يعني وراي سم البكندي وراي سم ال... يو لا يوخ والفاعل من مستر وجوبا تقدر انت الها ضمير متصل في محل نصب مفعول به كن الها يرجع الى النصب وراي سمال بكن بي وي موم بكن في الاعمال تي بير جيفي دال بوكاي موم لي تسبيح مينا بكن بوكو دون خول تي بير جيفي ساي ما دافي ملني مبول دي اي گلم لا ريت وان هي ندي موم بكن مي استحرج ساكو ناي بويلو المرا تشاوي فلا تزم بوكو نينال بوكو باي مينا بكن دافا ملني اك تشاو تي بير جيف گيس نغا تشاو بو فكي دنگ كوي سامو مونالان باي ما ريت man dem fu ma neex du ma yegg ci barab sàngam mi naa bu ko def bu ko bàyyi de boo koy bàyyi dina dugg fu mu war a dugg mu naa bakkan noonu la mel ci jëf ci biir jëf boo ko bàyyi rek dina def loo xam ne war koy def waaw tamit waraay a sàmmal bakkan waye moom bakkan moom lay misaale fii amal ci biir jëf dafa mel ne saa imatun ay mbool de gëlëm la wa in hiya ndéem moom bakkan bi istaali sàkkoonay boy lu almara caawa gi ah fala tasum bu ko ne la wala way in hiyen de moom caawa gi moom mbol de gëlëm isa sàkkoona baylu almara sàmm càmmuteef gi fala tasum bu ko neenal dem sàkkoona baylu baylu almara caawa gi fala tasum bu ko neenal إمام عم بشير من كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم كم جوكو كم كم قبرية من كم حسن نيات lu rafet kam xasana ñaata la rafetalee moom lazatan bànneex lil mari ñeel jam xaatilata mbir moom mi aji rey ko bànneex bari na bam taaralee as cam si dara fekk daf kaa bëgg a rey rek gis nga poisson buñ la koy defal ci ak zi zi bi dafay neex lool te poisson bi moom ci bokkum bànneex wi ci boppam moo la taaralal kaas ba taaralal jëmm ja bee mu nga ñeme koy naan fekk poisonné mu ngi ci biir boo koy naan rek ay minutes yi néew nga dal di koy sant moo tamit ne kon bànneex la dafa bari lu muy la as cam fekk la mu koy rafetal baaxut bi ma an loolu la bëgg wax moo tamit ne kam xasanal bëri na ba mu rafetale lazatan bànneex lil mariñal cam si xaatilat ne mbir moom muy aji rey ko min xay su tukkee foo xam ne lam yedri xamul ne ana na summa naka tookee naka poisonné fi dasami aji nekk la ci diw dax poisonné man nañ koy def ci ak zi zi wala ñu def ko ci ak njar wala ñu def ko ci ak ataaya wala ñu walla walla walla walla jox la ko fekk na lañ la ko joxee moom lañ taaral ba mu rafet ñu jox la ko doo ko foog nga naan ko rek ginaat imaamu am bashir min wax fedde zaïsa min joo min wa min shibai ruba mahmasatin charru min a tuxami mi na gis nga nag mbon mboni na nga ragal yàlla mm-hmm. jamono woo xiifee ak jamono woo rekkee gis nga ñaari yëpp nit man na ci mooy yel jamono wo xiifee bu fekkee ragaloo yàlla nag da ngay wax ne xaar ma dem agressé. xol nu may fàddee nit ñi mëna am dara dem lekk kon mi naa ragale yàlla jamono wo xiifee. jamono wo regge ba jàpp ne am nga doole kenn mënu lay def tié man nga ci def mooy yel mi naa ragale yàlla jamono bi nga regge tamit. wante mi ne wax sa ragalal addasaa yi sa bon bon yi. min juuin tukkee ko ci xif u min shibain ak ci regg. gën a mi ne fa rubba mahmasani bëri na aji fakkale ji mhm. charru xayam mi ne tuxam mu ngi tuggee koo ci fër mhm. bëri na koo xam ne dafa fakkale mhm. te xayam fu mu koy jëlee mu ngi koy jëlee ci fër mi ne àkku net bëri na ku am ko kuy def mbon mu ngi koy jëlee ci xiif wala mu jëlee ko ci regg rek te mi ne wax charagalal addasa yi sa mbon mbon mu jooxin tukkee koo ci xiif wa min chibaina ak ci regg rubba mahmasatin bëri na aji fakkale ji charru xayam mi ne tuxam mu ngi tuggee ko ci fër وراي سمال بكن وي موم بكن دال في الاعمال في جفي ساي مر مبول دغلم وي ني اندي موم تاوغي ام ندم بول دي استال زاكو نه بويل المرا تاوغي فلا تزم بوك نينال بوك باي كان حسن برينا بان برينا بام رفتلي لذات موم بانير للمر نيال تم سخات الميرو ماجريكو من حيجون تيغو فوقم ني لامي دير خموت الناس منك توغي في دزنو اجي نيك لا تي ديو داخ واخ شركه لا الدزاي زمون مني من جوع تكي كو جقيف ومن شبع أترق قرب محمزة برنا أجي فقلجي شر حيم من التغم من تكي كو جاكفر نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم